ça va yéen si jàmm bu baax ñu ngi lay ziar di la nuyu di la fay di la fay bu baax baax incha allah. bi may ban bi mooy bergerie Silla. bergerie Silla yow man maay Omar Silla. Omar Silla nga jël sant bi rek tuddee ko bergerie bi. waaw sant bi laa ko tuddee quoi. Hmm. Euh, tey euh, fi ma kañ nga dugg ci élevage d'abord. non maa ngi si dugg 2009. waaw maa ngi si dugg 2009 ba léegi maa ngi nekk. Ah. Ah, di yar quoi mais daanaa yar ay xar nag yu bokk ci xaru laadum yi. mais xaru laadum bi ma si duggee ba nga ciy dugg nga ci duggee. non ma si dugg 2009 dafa ma sam benn waay ju nekkoon ginnaaw raay bu ñuy wax mbàkkeloo ma ko ma yor ay xar avant loolu sax daanaa ko gis quoi daanaa gis laadum bi mais ci ci ci moom laa ko gën a ràññee après ci laa dem xool xool xar yi ñu rafet impressionné ma xam am sam benn mag boo xam ne man ak moom ñoo tamit ñu ngi si nekk di liggéey ma wan ko xar yi xar yi neex ko ñu dugg ci quoi waaw noo ci duggee da nga dem uti maal wala femelle wala tëng. non bi ñu siy dugg bi ñu siy dugg danoo jënd ñaari femelle.

mal bi ma njëkk a ci suus boobu la bokk. waaw parce que suus boobu suus junior la. waaw benn benn sëtu junior la woon. waaw moom laa dugaloon sama kër muy liggéey. waaw sëtu junior bu liggéey fa ba defee benn base de femelle bu wóor wax dëgg yàlla ma téye ko nag. waaw base de femelle boobu ci laa liggéey tey ba liggéey ci mal bi. waaw ci laa mal bi mooy jazz. waaw mooy jazz jazz doomu golden la. waaw golden doomu roi Basir la. waaw côté pap eh, yaayam. waaw mooy suus boobu ma la doon wax rek suus boobu junior la. waaw surtout junior laa jël teg ko ci benn femelle mu génne femelle ma tegaat ko ci dubalees mu génne yaayu mal bi waaw. tey moom ñaata mois la am. moom mi ngi am 18 mois. waaw 18 mois la am. léegi yow moom da nga ko jëli ji da nga ko dem seetiwaat jëli ji ko wala da nga ji ut famille ñu tëbal la ko mu jëli sa kër. waaw dafa am sama benn euh, frère bu ñuy wax papa. Mhm. te dëgg tali Tali Ikotaab ñëpp xam nañ ko maa ngi koy remercier. xam nga di ko saluer quoi. moom moo yoroon benn doomu moo moo yoroon doomu Golden. moom moo yoroon golden astafurlah moo yoroon golden bi mu yoree golden léegi ma yor benn femelle dem foofu mu may ma tëb waaw ma may tëb muy sama kër te ba mal bi judd si tey. waaw léegi tey ñu ngi ñaata mois. moom ngi ci 18 mois. 18 mois donc léegi instant bi euh, dugg na kooku wala duggul. non espoir la woon bi muy ñëw fii foqul. mais dafa ñëw ba fii benn bëñ bi dañ. waaw dafa ñëw ba léegi duggul espoir quoi mujjul dugg espoir. parce que da foq foq ñaar lan wax. dafa jël foq na ñett quoi. femelle bu weex maanaam. femelle bu weex moom doom papa la. waaw waaw doom la. papa nekk surtout Abdou Fall. waaw su papa surtout Abdou Fall la. waaw non juddoo su moom dama ko jënd. ñoom dama leen jënd waaw. ñoom ñaari ñëpp dama leen jënd parce que. noir blanc bi bi tamit dama koo jënd noir. waaw noir blanc bi moom. Uh-huh. doomu docteur Fall la. doomu docteur Fall la docteur Fall doomu magistrat la. waaw dama jënd quoi parce que waaw ma boo gisee ma jënd leen mooy maal bi moo tax ma jënd leen. li ma li ma li bu mooy instant bi bergerie bi da nga ko ñaari femelle pour ñu def ñu def ñu defaraat dama koy dama juddulee ma maal bi. bi ma juddulee maal bi maal bi xaw a bokk sama xar yi nekkoon sama kër. ñu xaw a bokk deret. ma dem jënd yeneen ñetti femelle la. boo jënd ñetti femelle ñëw dugal nag. waaw ñaar ñi laa indi parce que kenn ki ma nga kër moom da wàcc na maal bi moom maal bi wàcc nan mais ay seex la wàccee mënuñoo ñëw ci mënul ñëw ma bàyyi ko fa. ñaari moto yi ma fi gis nag. ñaari moto yi tam mal bi moo leen jur. ak ñaari famille du new nag ay seex. ku nekk ak sa doom la ku nekk ak waaw ku nekk ak sa doom la benn bi góor la benn bu jigéen la. waaw benn bi deux mois am. benn bi un mois la am. kan si góor bi un mois bi mooy góor. bu ndaw bi waaw. mooy mooy bu góor jool bi mooy mooy. waaw mooy bu jigéen bi. rafet na trop. ok merci jërëjëf. xam nga ni jaar naa dinañ ko xool fii ak mu nekk maal ñu xool fële jëm parce que auteur bi rafet na incha allah incha allah waaw waaw. noir blanc bi dafa koy bàyyi xel quoi. jox ñu secteur bi ak numéro bi. 77 euh, la numéro bi 546 78 58 Parcelles Assainies la unité 22 à Fass Grand Médine waaw. ok maa ngi kontaan. non macha allah macha allah. deuxième édition bu mel ni wax dëgg yàlla euh, neex na trop. gars yëpp kontaan nañu. te fête la xam nga fête na fête bi fête nañ ko. jal na si jàmm ñëpp kontaan nañu. jaayoo merci ok